mbir mi mooy sant yàlla subhaanahu wa taala ñu sant di ko gërëm bu wér julli ci yonent bu tedd bii di alayhi salaatu ñi nga xam ne bokku ñoo ñoom diine tam di suñ mbokk chrétien yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu wér gis nañu kon taxawaay bi ñi nga xam ni nag ñoo ñu jàppale suturaal ñu génnee ñu ci complot bu bon bi nga xam ne njab Macky sàll ak njabootam loolu lañ ñu doon waajal ak di ñu ko yéeneel waaye yegsiwul ma yëkkatiwaat kàddu gërëm nag waa Géejawaay ginnaaw waajur yi gërëm waa Géejawaay gépp ci mobilisation bi nga xam ne def nañ ko keroog bi ñu arrêté ba bu ñuy dugal ci biir kaso bi te bàyyiwuñu muy imaam muy mag ñi muy sage muy suñu yaay muy soxna muy jeunes ak personnelu mairie bi waa mouvement Géejawaay la bokk waa yeewee askan wi Géejawaay ak la conférence des leaders nga xam ne Khalifa Ababacar Sall moom moo ko jiite ñu sant ñëpp gërëm ñëpp. te nag ngërëm loolu it ñu boole waale ci nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy avocat pôle boobu nga xam ne maître Bamba Cissé moo ko jiite ak maître Mouhamadou Moustapha Dieng ak maître Sidi Diagne ak maître Thioy ñoom ñoo ñu nga xam ne ñoo ko jiite génnee ñu ci jahanama safara soo xam ne moom lañu ñu Macky Sall ak waa këram yéene woon te yàlla ji ne leen du ca dal lañ jàpp ne nag loolu lañ def di infraction ba tax ñu jàppoon ñu wax naa ko juge bi yàlla dogal na comme que ñun moom dañ doon ragale nekk ci biir génn ñu naan ñu bañ nekkee police dañ fa nekkoon di ñu yelewaan moo de inspecteur ba ñu doon déglu bind na ñetti yoon ñu may seetaan ma ne ko rectifier waxuma lii wax dindi lii lii laa wax ak lii bul tëb dara ci li ma wax. ñun dañoo seetlu saa yi bu gaa yi génnee rek ñu naan non dégg naa fa la nekkoon di onk di baal baaluwuñu te bu ma génnee dinaa doxaat. ba ma demee ca kaso ba ña ma fa fekk ma wax leen ko ba ñëwee tribunal démb taxaw ci kanamu juge bi ma ne ko yaa ngi nii procureur yi ngi nii bàyyi ngeen ma léegi dox naa léegi su may demee ba di dox ma jugee tey sama kër dox ñëwaat fii su may ñëwaat suba mercredi damay doxaat ñu xool ba xam dox dañ koy tere ci mim réew. mairie bii nag li ma wax juge bi laay wax Macky Sall yàlla dogal na li muy dogal ba pare mairie yi muy nangu bii du ci bokk. bii dañ koo xeex sept ans sept ans lañu daw ci mbeddu géejawaay suñu alal fekkewu ko suñu njaboot fekkewu ko ñu rey suñ bopp parce que y avait un intrus nit koo xam ne daf ñoo rax dëkku fi dëkkaanu fi porox ndollu ba jël suñu maire bi toog fi 2014 le premier mars 2015 ma ànd ak sama juróom su juróom benni xarit juróom benni xarit suñ ñaari yaay suñ benn jigéen ak ak ak ak ak ak ak maag Omar Ndiaye ñu ne kii na fi jóge ñu daal di départ sept ans de combat mairie bi caaxaan mayuñu ko nelaw mayuñu ko yelawaan mayuñu ko te kenn pare na wuñu ñoo ko xeex jot ko ci suñu coalition bii di yeewee askan wi Macky Sall mairie yi muy mayee ba tax mu leen di woo di leen baab pour ñu ñëw transhumé bii bokk ci bii bii moom na ko leer ne moom bu dee moom la yaakaar a reeree day fande mairie Guédiawaye bii du mësa a dugg ci mairie yi fax te ñun nag fi bokk dañ ko xam Guédiawaye duñ fi bàyyi rakkam ji nekk ab milliardaire bàyyi fi ay ministre bàyyi fi ay directeur yow Ahmed yoroolu suukar madd nekk simple journaliste ñu jël la nga rawee ko presque juróom benn junni ci ay voix ñu lay woo naan la ay ñëwal nga jël lii ak lii te nga war waa Guédiawaye loolu dee sax moo ñu ko gënal yow nga def lu ne lii lancement la mais yii di ñëw yeneen yi la ñuy wax yow baab bu ne nga baab ko affaire yi dëgër nga ne xaaral ma jëm ko xoxatal moom sax xam na ma sax Macky sax xam na ma mais ñeneen ñi ñoom ñoo ma xamul mais moom xam na ma parce que ñoo nekkandoo woon PDS. démocratie nag dafa toll foo xamante ni nii. ci Afrique soowu jant dëkk ñu wër dafa commencé di fa yëngu ñeen ñi ñoo ko forcer seen bopp jarul mooy tudd seen tur ñeen ñi dañu bàyyi mu ñëw naturellement ci jamono jooju Macky Sall moom mu ngi jël ay liberté ne de réew mi kenn du fi sëqat kenn du fi puus kenn du fi paas kenn du génn sax sa buntu kër dem doxi loolu bu ko waxee waxul lu am nit ñi dinañu doxi dinañu doxi seen soxla dinañ doxal te du leen mënal dara ba dara booloo jeex bu loolu jàllee ñin nag jàppale ne ay otage lañu woon ñin ak suñuy collaborateur ay otage yoo xam ne dañ leen a jël boole leen nag benn ci police su benn ci police su Sénégal waxuñ ne police su bi yëpp a bon mais benn ci police su boo xam ne tudd nañ turam démb ci kanamu tribunal bi te dinañu ko tuddaat bu dee dañ koy yónni nag. na waajaat te tey waroon nañoo kar ba ma ñëwee ba marché filmique moom commandant bi waroon naa génnaat karñu suñu karoon tey kon dina xam ne lépp dëgg la te buñ génnee fii nañu karaat mu xool ba xam dana demee comme ni mu demee woon bu loolu jàllee ñu ñëw ci jëf ci ñaaw di nga xam ne moom la ñu nimiku ci nguuru Macky Sall ak ni mu yoree suñu alal ji Macky Sall njabootam gi ñu bëree bëree bëri def nañ fi ay tojaange yu raw fuuf di manifester dañ leen a bàyyi ñuy doxi seeni soxla kenn ci samay dëkkandoo lay tudd fii muy Seyna Fall Bougazelli loxo ci poos jàpp ko mu naan gendarme yi kaay leen ñu arrangé ko loolu rek la mu daw gendarme yi di bay bayal ak moom tey suba ginnaaw suba parce que Macky Sall la àndal Sonko waroon nañoo fekk ci moom benn pièce su cent franc rek foo billet benn benn kese benn mu xool ba xam tey fan lay fanaan muy naangi naangi ay millions voire milliards ñu tëj la ci kaso bi yàggoo fa dara génn ñëw fii di lambar lambari di dig Aline Sall maire bi naan ko su ma génnee ñëpp xam ne gaynde génn la ba ba biig ba démb génnul Aliou génnul. kane moo koy génne ak ki war a génn génnuñ ba campagne bi jeex. campagne a ngi nii di ñëw nañ ñëw te du ñoom nee nañ lan remontada ñàkk jom weesul nga yor nguur seex ko koo xam ni yorul suukar ma da nga naan ko remontada un maa leen ko tey député par force dañ leen dóor dóora dañu mobiliser alalu askan wi yëpp ku leen jox jël leen li ma leen waxoon ci élection locale yi lekk leen ba suur naan leen ba màndi su bis ba jotee rek ngeen defaat lu rafet jël leen seen doom yi yeewoo ak yéen fal leen moo gën ngeen topp leen seen alal lañu yor bu ñu leen ko joxee lekk leen ba suur boo leen duggee ci mbañ gàcce gi rek karawaase waat leen mais waxoon naa leen lu leer lu mel ni midi dañ leen di gagné fii conférence des leaders dañoo toog ñoom Sonko ñëpp toog ma ne leen lijjanti leen yeneen 45 départements yi géejawaay demee na ko tey maire par force dañuy gañe neex na xarit député yi nawoon foon béboo ñu làmbi feneen les corps de contrôle de l'État ñaata ay ARMP of nag gu jege gii rek barki démboo kese wax fi ay doomu aadama ñëw leen ngeen def déclaration de patrimoine képp ku ñu dénk un budget de plus de un milliard wala égal à un milliard da war a dem defi déclaration de patrimoine dem leen ngeen ñëw wax nit ñi li ngeen yor lan la bàyyi sàcc gu metti bi ministre Macky Sall yi dëgër bopp taxaw def lu leen neex ni leen demuñu nii lañ fi indilee ay jafe-jafe na fi ngoom kay taa ba dàqalu ko Seydou bu ñaay jaxate moo ngi nii ñëw taxaw li muy doon magistrat yëpp du pousse du passe mënalu leen dara maay premier maire après l'élection bu njëkk a dem buubu samay keccax ak samay bisaab ak la ma am a kës néew yóbbul leen ne leen lii laa am budget mairie Guédiawaye nee nañ un milliard cinq cent la kon man bokk naa ci samay oto ngi nii ba ci say doom dañ la koy laaj laaj la say soxna laaj la tout carte grise tout nga génnee teg carte bancaire compte tout nga ne naa acca enquête leen mais ñoom defuñu dara parce que Macky Sall lañ àndal tous les contrôles les les corps de contrôle de l'État nit Macky Sall yi ñu fi épinglé yépp non seulement du leen yóbbu sax police mu entendre leen mais da leen defal promotion ñuy defalaat leen yokkal leen ministre woo saaga kat ndey ñi nga xam ne ñoo ko daan jàpp di ko saaga di ko daggal di ko saaga di ko daggal di ko saaga ñooñu lay defal promo ñi nga xam ne ñoom ñoo reyoon seen bopp ci moom wax Ablaye wat ne ko fii troisième mandat du fi am les mandats de trop dafa war a jeex ci diwaanu Afrique gars yi waxuñu woon Ablaye Wade troisième mandat du fi am parce que dañ ko contrôlé parce que woo ku wax dëgg te yàlla tax xam ne Ablaye Wade yaafus jëleewu ko fi Ablaye fu mu fekk tali da koo yokk dong mais fekk na Ablaye Wade gas tali ba ba pare fu mu fekk assainissement da koo gën a xóotal waaye fekk na Ablaye jaar na fa ba dem aéroport bii muy tiitaroo Ablaye ko fondement ba wàccee fa roppalaan mu koy tiitaroo te bi mu koy inauguré ñun ñëpp dem nañ poussière ba keroog rey ñu pareegul muy jam ñaato gi fekk na Ablaye jaar fa ba pare ñu ne ko suuf si baaxul mu forcé ñu stade gazon baa ngi ne di toj mu ne kenn du ko wax kenn du def soo àndeek moom yaay bañ bu ñu la contrôlé jàpp la mu ne la kaay nii toog sama wet président de la république buy dem jàkkaarloog télé naan sama cont bi am naa ay dossiers yu ma ci teg yow daal yaay xool yu leen neex nga teg yi leen neexul nga ne gars yi dugal leen leen ci biir kaso bi Macky Sall moom réew mi te mënoo muusa bi ba nit ñi ragal la wala dellu ginnaaw te yow Macky Sall yow yaa doon wax Ahmed Aïdara mii ne ko bul mës a ànd ak nguur soit toujours du côté du peuple tant que yaa nga fa li nga bëgg benn di nga ko xam nit ñi dàqoo leen jàng ëppoo leen diplôme jiituwoo ci métier mi mais saa bu sondage génnee nga jël fee xamal ko waral parce que sibooru woo benn nguur kon du ma ñëw ba fii tey yow Macky ma lay sibooru moo wax ak suma nit ñi nga xam ne ñi jàppoon fii commissariat ak ñi nga xam ne la ñu yóbbuwoon rëbës ak président Déthié ak maam Diarra Fam ñu masawu leen waa Géejawaay ñi jot a jaar ci police bi ak ci prison bi ñu baalu leen àq parce que xëj na nattu bi si suñ loxo la ko yàlla ji jaarale. mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ma wër ñu sant leen gërëm leen. wax leen tam tamit ne leen lii moo indi mairie bi dem ngeen police demaat da ngeen demul woon kaso mais dem ngeen fi police su Aliou sal dem fi gendarmerie su Aliou sal ba tey ñëw ngeen dem tribunal ci affaire Auchan ba tey ñu ñëw ci Macky sal mu dugal leen ci kaso bi kaso na kenn du ko yéene kenn waaye moom moom moo fi indi dóor fayu moom Macky moo indi dóor fayu ba mu indee dóor fayu mooy ba mu toogee ne damay dekkalaat crédit bi ba mu toogee ne kër Ablaye Wade bi dama koy jaay ba mu toogee yoreel fukki weer ak benn Ablaye Wade salaire Wade loué France di defar këram nga Versailles di defar bi ci senegal mu ne ma Ahmed Macky Sall xamul man lan laay dundee mu téye sama salaire fukki weer ak benn lii yoon la ma ne ko déedéet nettali ma nag moom ab Ablaye Wade keroog bi waajuru jigéen wu makki Sall di waaja a tàggoo te ñu génnee palais dem dugg biir principal nemmeeku ko ñibbisiwaat ndénkaane wu jëmm ju tedd jooju ci àjjana la mu waxoon ñoo Ablaye Wade ak Macky ak Macky li mu doxal après kooku à suivre la. tôt ou dinaa ko waxi. xarit daal may boole. xarit ñu dem France jël Ablaye Wade émission ñu bisi Sénégal ñu ñuy supplier son ministre l'intérieur d'alors Ablaye Daouda Diallo dimbali leen teg pression lii ak lii ak lii ak lii ak lii balaa aduna di tukki ngeen di saraxu nit ñi toog tey yaakaar ne nguur gi day tax nit ñi gaayen tiit wala ragal moo wax Antoine Diome ne ko candidat la monsieur ministre candidat la candidat la député man maay tëdd liste Yewwi Guédiawaye Rama Cissokho mooy bu jigéen bi PDS ñun ñaar la Antoine Diome candidat la maay candidat Yewwi ñett xamuñu mais ñaar xam nañ ñett xamuñu mais ñaar xam nañ tey lancement dong la li ma wax ci waajuru jigéenu njiitu réew mi Ablaye Wade ak moom ak ca hôpital principal naa ci dellu si Antoine Diome dama ne ko candidat laa nañ ma koo def géejawaay candidat laa nag ñuy wax ñuy wax nag ñuy wax ne suñu démocratie bi ak suñu constitution bi ay nit ñoo ko doon xeex ba réforme 92 ñëw ba li xew yëpp jaar fi ba Ablaye Wade indi fi personne neutre pour ñu tëgg ay élection élection yëpp Abdou Diouf da doon wax ne jàkk jàng ku mën a nodd noddal mel nu Macky Sall moom moo fi ñëw jàppee boppam buur jàppee boppam gaynde nee na mooy roi des arènes damay tëdd di sieste di bàcc bàccal gars yi teew doo nangu benn yoon gars yi bëri bàyyil gars ñu bëri bàyyil Sonko mu bëri nga bàyyi ñoom ay Mbodj nga bàyyi laa lis des titulaires de Yewwi loolu la ñuy xeex ba dee par extraordinaire bu jàllul woon sax yow remplaçant yi ñooy dóor say titulaire te titulaire yi dañuy jàll par force neex na xar parce que moomoo réew mi Macky Sall yàq démocratie bi nga xam ne moo fi ne caxa caxatee suñu constitution bi def lu ko neex lépp ndax pétrole bii ñu tudd. ne 2023 2024 premier puits teen yu njëkk yi dana génn mun a doo ko fi bàyyi naan may leen ma ma yeggali fii ku dund téeméeri at ak juróom fukk bàyyi fi ay mébét fii ku fi toog ku ne am nga ay mébét saraka jaa nii yëkkati woon fi ay taax maa ko inauguré maa fay dugg par force neex na mairie bu bees bee du fa dugg maa fay dugg maison de la femme maa fa nommé directrice estat yi maa fa nommé ay directeur te moo fi nekkoon mënu ci tus ñuy xamal Macky Sall ne ko réew mi du ndonoom réew mi du monarchie du royaume boo xam ni dangay ngay wàcc sa doom yéeg wala nga wàcc jox say sët fii république la ñu ne sandicarte seul le peuple est souverain te Macky Sall war na cee dara fu may jeexalee nag mooy gërëm yenn ci police nationale ñenn ci police nationale laa wax yoo xam ne ay républicain lañ ñenn ci police nationale waxuma toute la police ñenn ci police nationale ñu sant leen gërëm leen gis nañ seen taxawaay ci coow yi fi jot a am léeg-léeg xaw leen a tuumaal na ñooñu dañoo xaw a yeewi nuyu tamit général Tine lu fi dar nit ci nguur gi rek parce que da ngaa jubal ñu ne la yow da ngaa war a far ci ñun par force. yàlla sax ñëpp dafa dañoo far ci moom am na ñoo xam ni gëmuñu ko sax duñu julit duñu chrétien nee nañ yàlla amul te yàllaa ngi nii bàyyi ñuy dundu suba ngoon guddeeg bëccëg ñu sant tamit l'administration pénitentiaire mooy ñi nga xam ñoom lañ dénk kasoy ci réew ñu sant leen gërëm leen ak détenu yi nga xam ni lañ jàppoon parce que ñëpp laaj nañ leen seen condition yi nga xam ne ñoom lañ nekkee woon ñu sant leen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon rëbës ña leen fa yoroon ñu sant leen gërëm leen man ak Déthié ñu nekkoon Sébikotane ñu sant leen gërëm leen dëkk boo xam ne boo defee lu baax boo ne damay gërëm sa ñu ne lii sa waay itam nga tudd ma gars yaakaar ne gars yi ci yéen lañ far ndax tiit cette peur marron là moo fi war a jóge ñu sant leen gërëm leen bu baax nuyu madame la maire. Khadija maye koor gërëm tamit Déthié Fall masawu ko masawu tamit Maam Jaara Faam masawu tamit Baara Dolli masawu tamit Guy mari Sagna masawu tous les otages politiques de Macky Sall ñi nekk ci kaso bi yëpp parce que ànduñu bokkuñu gis-gis ak Macky Sall ñu ngi leen di masawu di leen gërëm di leen masawu lii nag du fi lu bees Ablaye Wade keroog ba ne day dem créer parti papaam dani ko ndax ñeme nga ñaar yii mu ne ko ban ak mu ne ko kaso ak dee kaso ak dee kaso ak dee xam nga kooku ute naa ki naan perte nguur gi dee moomu ko gënal dinaa ne dee de parce que de alaaji Ibu nguuru yàlla rek moo dul jeex te nguuru yàlla li dox du jeex mooy amul élection yàlla ba sama amul élection boo amoon élection dafay yàgg-yàgg gars yi jékki-jékki ne ko sawaay doo ñamal diw mais amul kookoy borom kun moom asamaan suuf samaawaati wala ard mooy càppaacoo liggéey kooku amul élection kon nag moom mii tôt ou tard dana dem te moom sax fukki weer ak juróom-benn dong ñoo ko fi dese parce que vingt 2024 moom du bokk léegi nag ki ñuy waajal ñoom seen biir 2024 moom la amagul dégg nga opposition bi bu ñu radical sax xëy na mu xool koo xamante ni nii moos de day tuut fii cap fee bu ko defee euh, mooy mooy loolu mu wax ak moom bu ko defee xëñ na mu jéem ko ko buux mais APR ci boppam ñoom ñoo amul ku ko wut te ñemeewul dem tiit na def fi yoo xamante ni nii maara day taali yaakaar na ni ku fi toog di ko rey réew mi nag amul ay rey reykatu nit konoon ba tey bu ñu duggee fii ci biir mairie bi fii quatre-vingt-dix-huit pour cent yëpp ay waa APR lañ fii cent quarante-huit yëpp fii li ñu leen sant daal mooy fee ca buntu ba na fa yére yëpp di yem yére yeewi yeeg yére bennoo ca buntu ba boo duggee liggéey pare dem ku fi dugg naan da nga fiy jéem a politique far fi ci beneen feneen boo bokkee yeewi sax dinaa la wane ne gis nga fii la woon woon na ñi fi nekk te duñ liggéey si dàq leen dagg naa fi huit salaire xaw ma demuñ conférence de presse de dañ na pat trois ans teguñ seen tànk fii ci mairie dàq naa leen mais kenn demul ci presse di kaas ku fi dem ci presse di kaas ñu yóbbu le tribunal nga remboursé léegi xaalisu nit ñi war a fay sàcc lañ mais dañ ne patt moom boo léegi lu seen naqar ne mu buñ fi dof dof loo léegi ma jëli leen ñu santaat nag presse bi gërëm leen ci taxaw bi nga xam ne taxawu nañu ko parce que critique bi léeg-léeg day saf ci presse bi fii lañ far fee lañ far chaque jour ñu dégg ko mais on gère yooyu yi ñoo ànd man temps Ablaye Wade ñoom Macky Sall ñii ñoo ma doon wax ñoo ñoom ñoo ma doon tagg li ma bambaane ma doon star waa kër waa di naan xool leen ko ay politiciens encagoulés tey waa kër Ablaye di yooyu ñoo ma def star ñii ñoo ma yóbbu police tëj ma kaso métier bi moo ni demee ku nekk defar rek yow li la sa conscience jox boo tëddee nelaw amul ay tiit amul ay yox yox yi te nag ma wax leen benn affaire. man sax du ma leen jàngal seen métier xam nga li ma li ma leen di def daal mooy ñaanal yàlla musal leen ci faxasalu làmmiñ yàlla musal leen tamit ci faxasalu xalima yàlla musal leen jàppale leen gërëm tam imaam yi nga xam ne ñoo fi ne yëpp ak jeunesse beeg ñëpp gërëm nañ ñëpp allahumma salli ala sayyidina